si sama sëriñ nijaay kee lu ma am Cheikh Abdou mii gis nga photo bii bu defee nii benn loxo bii bustaan la juróom-ñaar fukki dayira dajoo coow li bari mu dugg ci biir te balaa ngeen di tàkkusaan nu ñëw ni ko mbakke boo génnul ñii fa ñuy fanaan mu ni bu ngeen demee mënuma kenn ku ne ma jox la loxo waaye mën naa leen a xool ba tubiir mën de bu ñu ko mënee ma ñëw tegoo kaala gi génn rek day yéene ni kër kër kër mu ni jëy benn loxom bii ñu tallal mu ni tëf wan leen ginnaaw am ko ne a ah, mbakke ñaan gi gàtt na mënu ko daan na du diir ne daan na du diir sëriñ Seex kenn ñaawul njot si teew daan mooy ku mën a fetal danaan cës rek ni tëf daan na boo doo jàmm saraga ngi nii sëñ Moustapha yi ak sëriñ Fallou ak Cheikh Mamadou Bachir Gorsi ñoom ñëpp yaa ngi ñoom benn ngi yéen ku toog fi yow du jëw boo toogee boo jëwee mu ne xaaral ma woo ko bu ni may nga bu kenn toog ci man tudd sama rak lu waayoon see sëñ Abdou Khadir tax boo gisee sama rakk ko ko jox sëriñ Cheikh Asbab nag te Ousmane boo demee ne président laay Wade kii moo du laaj te du santaas te du xuloo du bind ci dugub ju xonq ju laaj ci woto yu gàtt yi du xëccoo ci bong ji kenn du ko dégg mu sànni xeer te bu xeeram dalee fu mu dal mu nooy waaye kenn du ko dégg mu sànni xeer sëñ Bamba da koo doy bi ñu tay la julli ràpp ci bureau gouverneur sëñ Bamba sa maama jóg julli mu ja woote ëppi dongo sunub soroor gën jumaa yëg si mag day ci moom màggal ko mag ji jumaa ju mag ji xaaji bu ma mala sali siin ba bari si sëriñ Cheikh Ahmadul Xadim yaay yoon wi bi sëriñ Tuubaa yi dem lu mu yoroon te bañ mu la ko dénk dafa roof tànkam ci déggalu ngelaw mu la bi loxo mu teg ko ci seen Moodu Moustapha bii mu teg ko ci seen Fallu dénk naa leen yàlla ak yonent bi ak seen bàyyi Cerno Cheikh Abdou Khadir Mbacké faa Balla ak Aysa Balla ak Abdou Khadir Balla bokk ndey ak baay Aysa Balla lañ jox si kenn yi Mbàkke ñu jox ko Sëriñ Bousso bi maam Cheikh Aminta kenn yi Masamba kenn yi Mbàkke kenn yi boo doon bàkku kenn du dëkk ak yow kuy sa baay jili yi limaan dañoo dem mbul kayal tocce i naaw ak njéeréer yi sëñ Muntaxa ñëw ni ko kenn mënut a togg kenn mënut lekk ndax yi mu ne nañ si jàpp benn jox ma ñu ni benn njéeréer nuus sëñ Abdou Xaadir téye ca njéeréer ba jëmale ba ba penku ni nangam nangam ni ko xër njéeréer yëpp toog penku Cheikh Abdou Xaadir sa baay bu xëyee ajjuma balaa dem fenn day dem ci sëriñ Touba dem ca sëñ Modou Moustapha dem ca sëñ Fallu mu génn nag ci sëñ Fallu lem toppi bi génn góor yuuxu ca ginnaaw gubbi jaww wooy kama gisoon naag bàyyi mu ne ma lu wax man ko nee na kam gisoon moog bàyyi mu ne kama gisoon maag bàyyi ci njaareem a ngee yooru yooru bu àjjuma laa ànd ak sama bàyyi njaareem gis sëñ Tuubaa kama gisoon njaareem laa gisaat kooko Cheikh Abdou Khadir doon tudd doom yi Cheikh Abdou Khadir mooy jullee néew yi mooy fa mooy fay ordonnance yi armeel yi daal moom xam nañ sa ña fa daa tëdd xam nañ sëñ Abdou Khadir xam nañu ko bu ñeet ma ngay jëm si armeel yi ñu indi néew yi yëpp bu xoolee néew yi xam ba cay góor xam ba cay jigéen xam ba ca am borom kër ak ba ko ca amul xaaju borom ci mamaran sali siin ba saraka yu gore yi gor si Bachir Mbacke caat mu baax mii bëgg la Cheikh Moustapha teg la ca kaw saraka yi noppal la waaye ma ni yéen taalibe yeeg fédération bi lu ngeen bëgg rek wax leen ko rakkam yi bu ngeen ko ko waxee daañu ko ko defal nga teg ca leneen noppi ak maanu ak nag doo jeneenu kenn ab taalibe du toog ci yow mukk tooñ doo far tooñ góor nga jullit nga yaaram nga tam nga waaye ku ñeme dëgg nga nañ la bàyyee alim nag waaye du xaar jalla jalaaluhu jalaali wal ikraami li nga bëgg dana ko def li Cheikh Abdou Khadir liggéeyal yàlla liggéeyal ko rasulullaay liggéeyal ko sëñ Bamba boo soxlaa mu am waaye sa loxo yii boo ko njëkkee ñaan jàmm ci réew mi Ousmane tëddal nelaw xadd xuloo naag taw te seelu yëgut xadd xuloo naag taw te kay seelu yëgu ko sëñ Abdou Xaadir mooy xadd taw du yegsi xaadi mburu ma maran ba xaadi ma maran seli sa maam coro ngoon ko ba jëng lañ ko jox mu taawloo Cheikh Coro ak Balla Coro xadim Mbàkke kumba tay ba ñu joxante Njaay Mbàkke maam Cheikh Anta ak Afi Anta ak Fati Anta ak Mbàkke Anta ñoo toppante ñu joxe seen jëy maam Cheikh Moussa Mbay si ji ñu jox ko Faati Isa maam Cheikh Cerno te sëñ Bamba yónni woon daal ñu jox ko jaaru Buso mi waral coow li maam Cheikh Maam Moor Jaara ak sëñ Bamba mujje woote appi dongo sutub sooroor gën juma Ahmadul Xadim sëñ Cheikh Ahmadul Xadim waaw nijaay nijaay kaay am na loolu nag mënu ma faa yegg kaay dimbali ma waaw waaye mbay kaay rek waaw waaye li ñu ma defal ci kër gi yaa ko mën a waxal géwal buy wari fasam di tëgg nga ni ko tàggale naa ak fas yi tàggale naa la ak fees kenn dootu rayu nag ni la kaay fees ko sëñ Abdou Khadre rek nijaay kaay waay nijaay kaay ni daay ñëwal dimbali ma li ma sëñ Abdou Khadir defal ku dul yàlla mënoo ko ñii ma doon lim ñëpp binduma ko ku ma gis xam naa la sëñ Abdou Khadir ni daay kaay bisimilah. asalaamaaleykum du nu amoon benn kilifa bu magoon ci réew mi. doon xaritu sëñ Moustapha Mbacke ak sëñ Cheikh Fatma daf daan wax wax bu yàqu ku ci dugg yaa yaa yàq wax ja muy kan muy la président Lamine Guèye man day wax ju gàtt rek laay wax Ablaye mii at yi mu am ak dëkk yi muy dem ak ñu nu ko nawee waaye xam ngeen Ablaye may waaye gënul ci askan wi waaye waaye am na nag ku xam ne ci dëgg-dëgg bu waxee yàlla yàlla nangu moo tax ablay bay mel nii mooy kan mooy bàyyu sa dëgg-dëgg sang bii toog Serigne Cheikh ñëw naa ngir askan boo ci téye kenn rek téye nga ñëpp ci téye woo Ablaye rek nañ bàyyi bàyyi nu waaye Ablaye nii mu mel ab Ablaye Wade di ko woo Ousmane Masseck wax na la léegi ba ay na moo ci ay tonu ceeb am lay xam ngeen bu doon Cheikh Abdou Khadre kon dama lay wax ni foofu ana waa peex rek rek waaye ànd ak ku mata àndal nag kooku mata àndal histoire dina ko wax école yi daanu ko mës a jàng loolu mooy histoire mooy lan moom rek Cheikh Abdou Khadre moom rek à travers l'Afrique moom rek à travers le Sénégal moom rek à travers les religions moo jiitu fii Alaaji Abdou Xam waxtaan kenn amu ko ku Cheikh Abdou Khadre Alaaji Malick li xam seen Tuubaa jiite ah, loolu ku ko am ay eh, Ablaye Mbaye kon nag Mbaye sa dëgg-dëgg lu la defal man na ko defal ndax maay sa kilifa te seen si si mbër ne ko amagul daraja amagoo xaalis ne amagoo kilifa daraja ji mooy lan mooy taalibe Cheikh Abdou Khadre la daraja la wax mooy nuyu mu ne ah Ablaye Mbaye baa duma yóbbu si sëñ Cheikh wala sëñ Moustapha baa duma booleeg sax le président de tous les Sénégalais nu teral la loolu nag ci dëgg-dëgg ñaanu wàlliyu la sëñ Cheikh ñëw naa nag li tax ma ñëw mooy sama jabar def fi jóge yàlla moom ko sëriñ may si bu alaaji Mansuur toog Maodo si bu alaaji Abdullah si toog ñu tuuti ñu dégg coow lu rëy ak oto yuy dalante ñu ni loolu lan la ñu ne sëriñ Bass Abdou Khadre représentant du xalif général des mourides moo yegg si mooy sarako ju gore ju baax jii yaru lool xàmmee lool gis naa léegi bi nga sumee sa mbaxane di nuyu sa sang kon Mbàkke yal na yàlla guddal sa fan tuuti ñu ne ma ah am na ñeen ñeenti oto yu wàcc de ak ñeenti oto di laajte kër Mansour Mbaye ma ne kana ñun ma sëñ Moustapha Abdou Xaadar wallahi bu Cheikh Abdou Xaadar yee bu Cheikh Abdou Xaadar gi lay tiim ak sa maam Xaadim Rasul waaye sa toogaay doo ci defar dara ma toog ñu tuuti ñu ne ma am na ku lay seet xale ya daw ñu ne kan la ñu ne Cheikh Abdou Khader <laughs> mi moo ñëw daf lay jaale si moom itam na rakkam ya def waaw lu tax du ma ñëw nag ku la yëg nga yëg ko day waxtaan kër Mbacke fay ñu ngi ko jógal coono bi bari na ma ne asalaamaaleykum mu ne dematuma sëñ Cheikh bi mu ñëwee léegi dafa ne ma demal ci Serigne Moustapha mu jógee ma ndax gis nga Serigne Cheikh mbokk noonu la ñu koy defaree di ko waxee noonu Serigne Abdou Fatah maa ngi lay ziara Mbacke Balaye coow li coow li ci réew mi à travers le Sénégal ah sa bàyyi def na ci lu rëy kenn du wax Afrique kenn du wax chef religieux kenn du wax dara Cheikh Talibou yow duñu di wax ko sa ne attendez ñu ne waaw on attend kii mu ni tël ni maay Sénégal loolu looloo tax nu may dégg maa ngi lay ziare Mbàkke ngir sama wóllëre di sama xarit seen Cheikh foofu laa yem di nuyu nag Ousmane Masseck représentant du président de la République de tous les Sénégalais maa ngi lay jox cër bi nga am ci man may sa baay nga xam ko lool di la nuyu ak ministre yi nga àndal yëpp di nuyu nag sama jigéenu bopp ajaratu ay du mboñ ñu daje fii tey ci màggalu Cheikh Abdou Khadre mësul daje fépp lu dul ci màggal gi allahuma salli ala sayyidina Muhammad sëriñ Moustapha ma yem foofu sëriñ Bass ma dem ana sëriñ ana ma jox Ablaye Mbaye kàddu ah, maa ngi gërëm itam sama bokki communicateurs yi Touba yëpp ñoom itam ñëpp ñëw nañu léegi nag nañu ma may ma yegg ci rajo bi ak sëñ Cheikh gisul waxaada lil abdaala kama kafaani alxarba wal jidaala sëriñ bi salaamun aleykum mbakke sëb géwe lay nuyu ku réeréew turam nag Babacar moo turam sëriñ bay jaxate samaam salaamun aleykum Mbàkke sëb jiwi lay nuyu kurée réew turam nag Babacar moo di yaw turam sëriñ bi gërëm naa la dégg naa it ci say jëf ci biir ci yow te sant ñi lay yaakaar ak ay wut ci yow ngërëm ndax ñu nuy dégg ak mbooleem ñu nuy seeru yaa ci gën ñu rëy ñu ñu daan waxtaane sàkk nga seeni kem sëriñ bi sa maam bu jàppee ko tuutee tuuti bay toll ni gosen mu soppi ko ak tukkal gu rëy gu jigéen samaam bu jàppee ku daan xaaraan ak ay sagar yu bon mu jébbal ko daggaaki baraaya mu boole gën samaam bu jàppee ku ñuy teggee ko yàqate ab deram mu def ko jaww mbig ñëpp xëy duggi far dagan samaam bu jàppee ku daan mooy yàlla ak yonnenam ba nag mu leeral digganteem ak boroomam far ko tin sëriñ bi waxtu weexat waaye bégal sab xol di sedd nga sant yow ku yàlla bégal day bégte yàlla bégal na la nga ku def moroom xam ne xel li yaa ko man lawet gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la sëñ bay jaxate nee na sa maam déggal ndax ku nu gaynde not segg ak ma fër dàq mu daw ah du soowoo ki boy noppil te yàlla gis na la